ngi sant yàlla mi nga xam ne mooy aji gindi ji ay jaamam moom mooy dimbale waa kon bi mooy buur bi nga xam ne mooy aji settantal ji mbiri jaam ñépp mooy buur bi nga xam ne yonente yépp moo leen yónni ci ay jaamam yàlla julli ak sëlma nekk ci ñoom mu yónni leen ci ñi nga xam ne dañ leen a jëf noo ngi seede tey wóolu tey dëggal ne amul benn buur bu yeyoo ak jaamu jaamu ga mën a jural njariñ ki koy jaamu ñàkk gaa jaamu mën a jural lool kurub yàlla moom rekk la amul kenn ku bokk ak moom ak mburam ngi seede tey tey dëggal ne sayyiduna ab jaamam la ndawam la mooy ndaw li nga xam ne mboolem ñi ramu bàkkaar yi ëllëg mooy ka ci gën a mag yàlla jullee ak salma nekk ci moom moo ki ñu ñëw ci saxaabam yi nga xam ne ay way teey lañ ay way laab lañ mbokk yi li ñu bëgg a waxtaane tey dañu koy tënk ci ñaari xaddis yi yonent yàlla muhammad salawaatullahi wasalaamu alayhi li tax ñu tànn ñaari xaddis yooyu bëgg ko waxtaane mooy dañoo nekk ci jamono joo xam ne dañoo siiwal ak njabar ci rë ci àdduna rawatina ci réew mi ñu nekk nit ñi ñu bari ci ñoom ñu gëmloo leen ne leen am na ay nit yoo xam ne am cër ci nguur yàlla yi lu suñ borom di bëgg def ñu di ko xam mën a fànq ay lor mën a ñoddi nit ñi ay njariñ te fekk demewul noonu mbokk yi ñoddi njariñ ak jañ lor kenn yeewu ko ku yàlla ñaari hadis yi benn bi mooy yonent yàlla muhammad salawatullahi wa salaamu alayhi dafa wax ne man ata irafan aw kaahinan fa bi ma yaqulu faqad kafara bi ma unzila ala muhammadin lu mat a moytu la nee na koo xam ne fekk nga ñëw nga fekk waajoo xam ne ma nga tiim ay petaawam tiim ay xaawi fàlla yi tiim ay béjjën ki ren ki sunguf ne moom ab njabar la ab gisaane kat la nee na nga ñëw toog ci kanamam mu di la wax ne woo dalay nettali ci say mbir yoo xam ne ñëwagul te lam wax nga gëm ko mooy fa sadaqahu nga gëm lam la wax yonent yàlla muhammad nee na faxad kafara bi ma unsila ala muhammadin kooka day weddi na la ñu wàcc woon ci yonent yàlla muhammad te muy ya alquranul karim kon nag lu mata a moytu wax jëf joo xam ne boo ko jëfee daf lay génn ci cadre lislaam loolu julit bu ko xam war di ko daw kenn terewul ñaam waaye ku am aajo te bëgg ku la ca dimbale seetal jaamu yàlla boo xam ne jàpp nga ne moo la gën a ragal yàlla moo la ko gën a jekk nga ne ko dama am aajo sangam te bëgg ma ñaanal la ci te bëgg nga ñaanal ma yàlla mu fajal ma sama aajo bu bindee jox la num na la jëfandikoo ko te muy alxuraanul karim mën nga koo jëfandikoo waaye yii xew ci jamono ji mbokk yi nañ ko moytu rawatina muy lo xamne nak boko defé da fay dafay génn ci diine ñaareelu hadith bi néna man ata arafan fa saalahu an shay néna ku dem ci kat fekk ko mu tim ndox mba mu tim suuf mba mu tim ay pétaw di tëni néna fa saalahu an shay nga ñëw ne ko dama bëgg nga xolal ma ci sama mbir néna na day lam tuqbal lahu salatu arbaina yawm yawm dana am ñeen fukki fan yo xam julli gum julli yalla du ko nangu di dala julli suba ba ci julli ke ñeen fukki fan yo xam julli go julli yalla du ko nangu jullik naafi la go julli mo xam ci bëccëg la mo xam ci guddul la sa borom du ko nangu mbokk yii yaar mat moytu lo xam man na tax nga am ñeen fukki fan yo xam bo julle kenn du nangu julli ga muy farata muy nafila. la kuñ nanguwut sa julli it duutuñ nangu sa yeneen di jaamu yalla kon nak may tax mat moytu ak lo xamne man nak naa nit ci diine mbokk yi réew mi ñu nek ndaw ñi wala bok ñi ëpp ci ndaw ñi dañu séddale ko ñetti xaj ben xaj bi dañu jukté ne ñom ay nit yi tariyaax lañ ay sëriñi tariyaax lañ ñepp daw jëm ci ñaan di arnaqué nit ñi di leen ndax di jël ci ñom alal yu bari di ci tabax ay kër di ci wut ay auto di ci dëj ay soxna motax tay ji ndaw lu jëm ndaw lu tëb rek dal di daw jëm ci jëm ci ñaan ñi ci dess buñu ñu ba xam ay araf mën firi tuuti dal na ñun ay conférencier lañ dal di tambali nek di ronu bass ta te benn yitte la am ci micro yoy ñu leen jox mooy lu ñu am ba yóbbu ko seen kër kër yu ñu tabax ak oto yu war su ko defee di réeral nit ñi di leen nax di leen jublang di leen daaneel ay jël bu ñuy wax nit ñi di bëkk tàggali seen sago yëkkati seen alal jox leen bu ñu noppee ñu leen def ko ci seen soxlay bopp ñetteelu xaaj bi moom ne ñoom ay artistes comédiens lañ parce que gis nañ ne réew mi dëgër na te gis nañ ne po gaaw na lool ci may xaalis ñu ëpp ci ndaw ñi jëm ndaw nañ jëm ci comité koo ci gis ma nga ubbi pass TikTok seen YouTube am pass Facebook di def ay comédie di publier di ca am ay vie di ca am xaalis am réew nag bu fekkee ne ndaw ñi nga xam ne ñoo doon yaakaaru réew ma ëllëg lii lañu fa yéene def muy mécc ëllëgu réew mi war a sa ca jaaxle mbokk yi may waxtaane nag muy ñi nga xam ne naan ay sëriñi tarayax lañ ñu mën a xuppe lañ te man a tiitalaate toujours ñu ngi ci plateau télévision yi ñu ngi ci site internet yi koo ci seen ma nga léeg-léeg nga seen waa joo xam ne day jël ab këll xaatim ko ba mu fees del mu teg jël ay kayit bind ba mu bari lool nga jal deng nga ñi yoré ay bejjen yo xamné dang cey defu blaar boy def boy def émission deng nga ñi yoré ab bant naan sama bant bi nangam ak nangam ñen ñi tek kurus guni par ci sa kanam ngir lan ñi lay bokk yi may waxtaane nag muy ñi nga xam ne naan ay sëriñi tarayax lañ ñu mën a xuppe lañ te man a tiitalaate toujours ñu ngi ci plateau télévision yi ñu ngi ci site internet yi koo ci seen ma nga léeg-léeg nga seen waa joo xam ne day jël ab këll xaatim ko ba mu fees del mu teg jël ay kayit bind ba mu bari lool nga jal dégg nga ñi yore ay béjjén yoo xam ne da nga cay defu blaar boy def boy def émission deng nga ñu yor ab bant naan sama bant bi nangam ak nangam ñen ñi tek kurus junni par ci sa kanam ngir lan ñi lay seetaan ngay tital ñom ngay xixaan ndax buñ la gisé nga yor ay lar yu ami pitaw ñu na ah, kéré kene yi boo moytu ku dem ci mom aajum faju ta fekk na mom ci boppam aajum fajagut moom mom aaju faju la amé mom aaju aaju ju mbëgg mu faju mom la amé mom waye nak day jël ab keulum xaatim ko ba fess del bu ko tege ngay seen keul ba da nga ne eh, ki xaatim keul bi bam fess wala mu xaatim ak ki mom man na naa ci aju te fek mom ci da fa am aju yu fajagut muy xaar ni ñi ñu fajal ko wara mu yorub laar wala mu jam kurus junniy per ci kanamam nga yaakaar ni ci lay fanaan da na lay ni kurus gogu nit ñi la ci xiixaat nga gis ñi naan may borom jaaro bi ñu dàkkanteel seen bopp diw borom jaaro bi ñu naan may borom kéemaan gi ñu naan may borom aliwu ji dégg nga ñu naan may borom kurus gi kenn ku ci nekk wut lu tudde sa bopp tur yooyu mbokk yi du tur yi dara nit ñi leen di seetaan ci site internet yi ak ci plateau télévision ñoom la ñuy xiixaan di leen tiitloo ñu yaakaar ne mën nañu dara te fekk ne xamuñ dara ci li def ñoom ñëpp kenn ku ci nekk kër goo tabaxal a tey nelaw oto boo war a teel oto boo war a moo la teel nelaw alal joo def ci sa poos la teel nelaw kon koy sa aju fa ñëwul nga taxaw na ni man maa gaaw ci aajo yi ku ñëw boole teg nag tëlewuñ dara tëlewuñ dara tëlewuñ dara léeg-léeg sax nga dégg ku naan la ah, ah, man tawat ji ma gën a ay mooy tawat joo xam ne docteur yi dem nañ ba jaaxle subhanallah yemuñ ca loola sax de dañuy sax far di complot ay nit xam nga bërki démb ñi ngi ci wane waa joo xam ne mi ngi wax ba mu yàgg mu yore ma nga yor béjjén bu amub laaram waxam yàgg mu fëgg ci ginnaawam ne eh jógal ko ah ni ku mu doon fii kat maag rek a fi nekk mu ne ko jataay bi dafa léeg-léeg damay toog di wax am ñoo xam ne dañuy ñëw ci jataay yi te kenn woowu leen fi maanaam dafa bëgg a wax ne biir kër gi ci boppam dafa am ay jinneem yu fi nekk yoo xam ne moo leen tàggat bañ nooy nepp <laughs> subhanallah toog bu yàgg eh jógal fii laa wax ah waaye sëñ bi fii maag yow rek fi nekk donc daal ñoo xamne tamit dañuy dañoo tam bu may wax ñi ñew di fekk ci jotaay bi waxut ak kenn bopp mbokk yi boppam rek lay nax tay lu ci ëpp dañuy complot ay nit ndax bari na fi ñoo xamne dañuy wax ne dañuy faj waaye fi ne da ngay gis koo xam ne day ñëw ci biir kër gi yandu fa yore bantam dégg nga mbaa mu yore beekeem ñuy xiixaan ñuy xiixaan clients yi ñëw comme dégg nañ publicité bi ci site internet yi bu ñëwee nga gis kii naan man de bi ma fiy ñëw sama bët yi dana woon patoos daawu ma gis dara waaye ba mu ñëw fi ñëwee rek la ma jox ba ko defee laa tàmbali di gis te fekk na mok mok waajoo ju ci biir di ar arnaqué nit ñi ñoo complot ngay gis ki yorob bant naan man bi ma fi ñëw dama doon raam kii naan man ay ci ci pousse pousse lañ ma indee te fekk na dara du ci dëgg wallahi dañoo complot moom rek def naa fi xutba ci ginnaaw doon waxtaan ci eh, eh, maanaam sidibe sidibe yi ne ci dëkk bi ba ma ca noppee nit ku nit woo ma ne ma publicité sangam bi nga xam ne nangami at a ngi nii nga di ko dégg ci rajo bi te nit kii di wax naan bi ma fi ñëw dama doon patanti ko di làmbantu waaye bi ma ñëwee ba ma tëralee la ma la may defal ba ma ko defalee ci samay bët rek ba ma jógee laa daal di doxi samay sox mu ne ma jëmm jooju gis naa ku ko xam mu ne ma wànnente sax mosu ko def wanent mbokk yi xamuñ bàkkaar bi nekk ci seet aw fen maanaam complot nit ki mu wóor na la ne kii ci aw fen wu nëbbu la nekk ba noppi yow nga ñëw ci këram di ko duufalal aw fen su ko defee nit ñi muy arnaqué di ci am ay alal mu di la ci mën di seet nga yóbbu sa kër nañu seet alal yi ñu yóbbu ci suñ kër yi mbokk yi di ci dundal suñ njaboot yi mbokk yi nañu delluwaat ci yàlla am na ci loo xam des na ci laabiri ñii nga xam ne dañoo amee ay site internet ñu bàyyi xel seen borom ndax dem ci nit këpp ko sa sa sa caméra jox ko sa micro nga di ko interview mu dina mu mu dina tontu te yow mi koy interview wóor na la ne kii li muy wax dara du ci dëgg yéen ñaar yéen a ànd ci li muy def lu mat a moytu la mbokk yi seede aw fen dafa bokk ci bàkkaar yi gën a rëy te mooy seede aw du dara lu may fekk nit nekk ci njublang ba noppi nga di ko jàppale ci njublang loolu rek mooy seede aw te ci bàkkaar yi gën a mag la bokk moo tax lu mat mooy moytu la yi suñ borom xëy bu séddoowu ko kenn lan mooy xëy bu mooy yi ñëwagut loolu yàlla séddoowu ko kenn mbiram la nañ ko ko bàyyee wa indahu mafatihul xëy bi laa ya'lamuha illa hu suñ borom nee yi fàddu ci diggante asamaan ak suuf nee na kenn xamu ko ku dul man yàlla laa ya'lamuha illa hu man yàlla rek maa ko xam li fat kenn xamu ko ñun ñii népp waxuma li ne ci suñu li waxuma suba lay xew waaye suñu diggante jant bi so rek lay xew xamuñu ko loola mbiri yàlla nañ ko bàyyee suñu boroom nee na wa ya'lamu maa bari barri wal bahr nee na li nëbb ci biir jéeri ji man rek maa ko xam man yàlla li nëbb ci biir jéeri ji ku ci biir géej gi ku ne leen xam naa ko ku dul man waxu leen dëgg man rek maa ko xam wa maa tasqutu min waraqatin illaa yaalamuha benn xobu garab ak fu mën a nekk ci àdduna mënta woow jigee ci kaw garab ga rot ci suuf lu dul ne xam naa ko man yàlla mbokk yi xam-xay bi dañ ko bàyyi suñu borom nee na wa maa yaxsubu an rabbika min mithqaali darratin fi l ardi wala fi samaa wala asxara min dalika wala akbar min illa fi kitaabin mubin nee na yonent yàlla muhammad sa borom bi la bind mooy buur bi nga xam ne dara mënu koo rëcc ci diggante asamaan ak suuf loola lum tuuti tuuti ba tolli pepp atom rëccut yàlla wala boog mu gën koo bari kon nag mbokk yi xam xëy bu nañ ko bàyyeeg suñu borom mbokk yi lor ak njariñ nekkul ci loxol kenn ku dul yàlla cheikhul xadim nee na man danna gayra allahi yuxni aw yadur fa daaka fi daarayni du kadin wa dur koo xam ne jortu nga ne am na kenn ko amee njariñ ci kaw suuf nit ñi ñëw mu man di leen jariñ ku ñëw mu man laa fegal lor ku dul yàlla seexul xadim nee na amul nee na ku jortu loola yow boromu coono ngay doon te boromi lor ngay doon mbokk yi njariñ ak lor ci loxol yàlla rekk la nekk nekkul ci loxol kenn kuñ jàpp fii ne mën naa faj ajo ay aajo fajagut ba muy faj aajo kenn الضر والنفع من الرحمن ليس من البيدان والسودان شيخ القديم cheikhul لور اك na تي ak njariñ ci نيكول تي nekk نيت كو loxol نيكول تي ñuul نيت كو loxol كون نك نانيو ديلو سون nañu تي suñu جيمو جي nga xamne mom lañuy wax Iran daw tam nekkon ci min nañ ko lol ci télévision yi ci ay émission yo xamne daf ko don def yàlla yàlla defal ko wér ndax xëy ñu bari xam nañ ne jamono yépp mi ngi ci tawat waye nga gis serigne su bari genn ci internet yi dañ ko liggéey dañ ko gagné dañ Naim jep dañ ko japp na ay mbokam ñew ci man bu ñew ci man ma defal leen li bu ñew ci man dara leen defal na wallahi xam ci dara yalla yalla defal ko wër jaamu bi yalla la bu doon liggéey ci diine ci ndax bari na ndaw ak i jigéen ñoo xam ne gindikoo nañ ci moom ci jàppandoo émission yooyu nga xam ne doon na ko def moo xam ci site internet yi moo xam ci plateau télévision yi mbokk yi wolof yi dañuy wax ne yaram wuy tooy wu nekk dana ma sa wow loola mooy kuy kuy kuy wér ku nekk da nga ma tawat li yàlla di teg ay jaamam loolu rekk la ko teg du la neen waaye nag ñi ci site internet yi nga xam ne xiixal loolu nit ñi moo leen tax a jóg dañ koy def ci nit ñu siiw ñëpp ku ci faatu nga dégg ñu ñëw dañ koo liggéey dañ koo def nii dafa jógul woon ci boppam daa fonkul woon ñaan dégg nga ngir lan ñeneen ñi nekk ñeneen ñu siiw ñi ñu won leen ne leen diw meekat dafa siiwoon amoon tur ñàkk fonk ñaan moo ko rey daw leen ñëw daw leen gaaw ñëw ci ñun kon bu fekkee ne ku feebar la ñu ne na ay bokkam daw ñëw ci ñun ndax dañ ko liggéey te ñun nañ ko faj loolu ci nit ñu siiw ñëpp lañ koy def mbokk yi ñooñu ay naxaatikat rek lañ mbokk yi jaamu bi yàlla buy dudd bu nekk bu la sa borom yéene yiw dana la teg am natt saxaabi bi dafa ñëw ci yonent yàlla muhammad ne ko dhahaba maali wa saqama jismi man day dama ame woon alal alal ja dem na ma Amewon woon wér-gu-yaram wér-gu-yaram bi dam يونت يالله محمد نكو لا خير في عبد لا يذهب ماله ولا يذهب جسمه نكو يو نكو تجامو بيا الله بوخم نه سون بروم دوكو تك متي تو نياك با مو تكو متي تو تاوات نكو سون بروم بو سوبي اب جامم داف كوي تك اي نات جام بي نك ليكو وار موي بوكو يالله تيغي اي نات موي نات يا كون ايران داو بي ليكو دال دار دو دار لو ام نات نات ديال رك لا يالله كو يالله تيغي تا دالو كو سي ساغو مو دالو سي ليغي مبوكي نين دالو سي يالله te jeppal ko sunu bop baye ko sunu bop tay bari luñu julli bari luñu jang alquran bari luñu tuddu yalla lol lola dara ñu dimbalé ci sunu ngëm deugër ci sunuy xol ba lepp lu jóge asaman dal ci sunu kaw ñu baye ko ci kenn ku dul yalla mbokk yi lor ak njariñ nekkul ci loxol kenn ku dul yalla ci liñu daané la moy Cheikhul Khadim mi nga moy roy keroog bi way juróom génnee àdduna sëriñ Mor Anta Sali ca biir armeeli eh, eh, deqale yi ñu ko doon denc ba ñu ko dencee ba noppi sëriñ Tayba Ndumbe Marsil mi nga xam ne moo ko doon taxaw nga xam ne woo na ko ci biir jataay ba ana Ahmadou Mbàkke mu ne ko maa ngi nii mu ne ko jege sil mu jóg dox tuuti nit ñi gàllankoor ko munta agsi mu toog ne ko boo waxee danaa la dégg yam ko doon dénk daf ca bokkoon dama bëgg bu ñu jógee fii ñu ànd dem ci Lat Joor bu ñu demee nga jaale ko sa way jur wi ndax wëllëreem la woon te bu ñu demee ñu waxtaan ak moom mu teg la fam tegoon sa way jur nga féete ko fa ko sa way jur féete woon ci di ko àttel ay àttem ba noppi di ko jox ay xalaat bu ko soxlaa ca biir armeel ya Cheikhul Khadim ne leen dem di jaale ji ko de warteef la ci man ndax sama borom moo ko sant te sama wëraloon sama way jur la woon amaa nag dem di ko féete fenn ci mbiri àddunaam nag rus naa sol sama dal di dox ci kaw suuf di jëm ci bun buntu buur malaaka yi di ma xool loolu rus na ko ba ñu jógee ca jataay ba nit ñépp amee ko nag ci wax ñii ne dafa wérut ñi ne xel mee gàtt ñii ne dafa dese ndax ku toll ni chef de l'état am ay moyens alal yépp nekk ci loxoom ak ni jamono jafe nga xam ne kooka boo ko jege woon tey jii say mbir day baax ñu ne demal nga jege ko ndax say mbir baax nga gedd ko ci wérut شغل خادم نير بام لين تونت من خالو لير كتا خالو لير كان لي ابواب الصلاه تهز جوائز تغني كل ما حين ني نما جانغال غادم تي بونتو بور نده ньо اي بورامي نجارين لاني بو ديمي تي سيني بونتو توغم ньоم دا نان لا مانا فاجال سا اجي ادنا واي مان ما واخ لين نرين فقلت حسبي ربي واكتفيت به من سما بروم دوينا ما تا دويلو ناب ولست راضيه غير العلم والدين لول خم الدين او ما تي bayit wii mu ci teg lu mat dégg la walastu arju wala axsha siwa maliki li annahu jalla yugnini wa yunjini subhaanallah doomu aadama ju nekk ñaar rek nga am muy foo toll di yaakaar njariñ ak di daw ay lor Cheikhul Xadim nekk nee na walastu arju amul kenn koo xam ne danaa yaakaar ci moom njariñ si waa maliki ku dul sama borom bi ma bind wala axsa amul kenn koo xam ne danaa ragal loram mbaa ma yaakaar ci moom mu jañal ma lor si waa maliki ku dul buur bi ma bind ndax moo xam ne ne li annahu jalla yughnini jii nii mu ne amul kenn koo xam ne am nga kàttanuk di fegal jaam ñi seeni lor ak leen ñoddi ñoddi seen njariñ mbokk yi jullit yàlla bu nekk fii nga war a nekk mu teg ci ne anna ufawidu ahwaali liman ajasu an xaali anfusihim ajisal masakini mu ne waaw man ndaka lay jànge di dem di jébbal samay mbir waa joo xam ne moom ci boppam dafa lott ci mbiri boppam ni miskin bi lott ci dundal boppam hmm? maanaam koo xam ne dangaa dem mu génn ci plateau télévision mbaa mu génn ci site internet di kañ boppam ak bàkk boppam di wax ne moom aaju yëpp mën na koo faj jàngoro yëpp mën na koo faj mën na mën na koo saafara te moom ci boppam mi ngi jàngoro ji mënut a saafara mi ngi yitte ji mënut faj moo tax Cheikh Khadim ne ana ufawidu ahwali liman ajasu nan lay jébbale sama mbir koo xam ne moom mbiri boppam sax da cee lot hmm? lu mat a moytu la kon mbokk yi ñii dañu leen moytu ndax ku leen moytuwul danañ la teggaleeg danañ la tàggaleeg tawxiid kon ñu ñëpp nañu dellu ci yàlla te xam ne jañ lor ak ñoo di njariñ yàlla rek ku koy def yàlla yàlla saxal ñu ci ngëm yàlla yàlla saxal ñu ci tawxiid yu dëgër yaxfirullahu li